juróom-ñetti téeméeri junni xarak fukk loolu réewu Sénégal soxla ci tabaski atum 2023 gile jamono gi tembe réew mi manqué na lu tolloog ñaar fukki junni bopp yëfi nag fi mu gën a taree mooy fi ci Ndakaaru Njaay lena waralu ko nag lu dul fitna gi nga xam ne ni capital bi jànkonteel na ko fan yi ñu génn foofu noonu li ma leen mën a wax mooy que ci datu 18 bi passé mën naa ne décompté nañ fi enregistré nañ fi luy tolloo 84 000 têtes de mouton ci biir Dakar waaye soo ko comparé ak la même période daw daw ñu ngi tolloon ci même période J moins 11 à plus de mille 000 têtes de mouton. leneen a ngi nii lu waral xar manqué fi si Ndakaaru mooy rek liggéeyu chantier bu mel ni BRT si xàll yi mu jaar bëri na ay bërëb yu ñu doon jaayee xar yu ñu yëkkati. mais n'empêche am na quand luy tolloog fanweer. ak juróom benn point de vente yoo xam ne installé nañ ko ci biir Dakar. ngir nag fexe ba réew mi du am ay jafe-jafe si wàllum xar atu jile nguur gi jël na ay dogal lu mel ni yokk karange gi ngir rek a fexe ba jaaykatu xar yi di jóge si sous région bi am xel mu dal ngir ñëw fii si mim réew. si lu soxal nag yeneen i xeeti produit yi lu mel ni soble ak pombiteer gouvernement bi mu ngi dala xelu askan wi lépp dina doy sëkk si marché bi. waaye nag dañu soxla donc bi ñu defee suñu enquête gis nañ ne yenn producteurs yi dañuy def li nga xam ne mooy rétention de stock maanaam denc euh, li ñu bay ngir bàyyi ba njëg bi yéeg am na sax ñoo xam ne dañu naan fekk eggul ñetti junni maanaam quinze mille francs saaku bi du ñu génnee seen soble jaay ko looloo tax dinañ ubbi marché bi bu ko defee ñu importer soble lu ëpp 10 000 tonnes ngir marché bi mën a calme wàccaat tuuti. leneen li mooy pomme amul benn problème. beneen ponk ngi nii boo xam ne tudd nañ ko ci bile jotaay gouvernement bi doon amal ak taskatu xibaar yi mooy rek jafe-jafe yi nga xam ne askan yi boo maytu daañu ko jànkonteel mu di dogal yi nga xam ne nguur gi jëloon na ko ngir xeex rek sidon yu bëri yi ci tali bi nguur gi nag bañ na lànk ne duñu indi benn coppite ñeel wàll gi